bi ma ko biiralee ndaw si ñëw ne ma Iran ma di dama biir ma ni sutura laay ut ñu may ma ko ci ëmb ba ndóoy déglu li may wax de séquma ak moom dara nag ci ëmb bi ba mu wasin ma def pexe ñu doog ma koo may loola amul solo njaalo ga moo am solo maa ndaw si ma ko defal sunu atte dara du ko efface yàlla danañu atte téeméeri yar lañ may dóor bu ma amul jabar dóor ko téeméeri yar bu amul jëkkër su amee jëkkër ma am jabar am na góor dina am jabar di njaaloo jabari jàmbur jigéen dana am jëkkër njaaloo jëkkëri jàmbur góor ak jigéen danañ bañ a am jabar di njaaloo su boobaa sunu àtte ñun ñaar a ngi taxaw nëbb gi amul solo mais suñ ma ko may ci ëmb bi ma ko ëmbal do euh, jébbal ma ko ci biir ëmb bi ma tëddee ko xaraam na ma abadan abadan dootuma ko mën a denc bëri sëy yoo gis fii ci réew mii maa la ko wax génnal senegal ci meneen réew fii may wax ak yow am na ñu may seetaan ñoo xam ne takkante nañ ci ëmb jébbalante ci ëmb jur nañ doom yu bari te sëy bi wérul maa la ko wax maa la ko wax man Iran laa wax li ma du dañ bëri na ku ne këëm këëm nit ñi topp la te doomi njaalo nga doomi njaalu pur nga doo donn ko la biiral jur la ca moom it du la donn jamais biu orjo la hors-jeu la mënul nekk c'est impossible Saliou mënul ne biiwu hors la biiwu hors kenn du ko limaale ci PV match moo tax soo biiralee jigéen kañ la lay mën a dagan parce que ñaari wuyu ngeen su wasinee jàmm nañ la ko may man ngeen a dencante dagan na jigéenit it ku njaaloog moom bala nga koo mën a takk dangay bàyyi ba mu gis règle su deretam dogee ba xam ne ëmbaloo ko ñu may la ko ndax yéen ñaari yam ay njaalu kën ngeen waaye nag bul fàtte li ma waxoon jigéen dana ëmb di gis règle boo ma bëggee weddi demal nga lax eh, euh, Laxdari yow oustaz bi demal ci Laxdari ca bopp ba rek la ne bariwul soriwul jeex na waa asan bu fekkee nag man maa ëmbal ndaw si yow nga takk ko bi ko takkee ba ci biir ndaw si xamal li ne daa biir su boobaa nañu tekki sëy bi bu dee séqoo moom dara suñ la ko jébbalee nag ci biir ëmb bi buñ la ko jébbalee nga tëddee ko ci biir ëmb njaaloom boobu dañuy tas sëy bi mu xaraam la ba faw dootoo ko mën a takk na óoti góor nga óoti jigéen est-ce ma bul fàtte nag jigéen dana ëmb di gis règle bu ko fàtte bu ko fàtte de danay am jigéen ñu bari looloo leen ndax gis nga yàlla bu naree dogal xajul ci yow parce que moo la bind bu leen fàtte ne yàlla leen bind korona bindu leen ku ba yàlla ndax feebar bis buñ la suulee nga xam ne yàlla xew ku génn ci sa xel yàlla soo xëyee li ngay njëkk a xalaat mooy masque bi ngay takk fooy dem masque bi ngay yóbbu xalaatoo njàpp xalaatoo sangu farata xalaatoo julli xalaatoo yàlla xalaatoo yonent li ngay xalaat mooy masque rek ak sel fàtti mawlaana tabaraka wa taala te feebar bi yéen a bokk yàlla jaam la ngay jaam jaam bu ñëw la ngay jaam bu ñëw ngeen bokk kilifa muy mawlaana tabaraka wa taala idda jàngo ku takk ku biir nag jàppal ne buñ ko teelee yëg te jébbaluñ la ko nañ tas sëy bi su wasinee ñu may la ko suñ la ko jébbalee nag ci ëmb bi nga tëdde ko dañ koy tas dootu leen daganante yéen ñaar ñu dem rési ba nag ti del siwaat il faut ñu xam loolu dama nekk euh, def émission Sud bu Thiès fa liggéey benn jigéen seet ma dégg ma